mbokk yeeg xarit yi ñoo leen di euh, nuyu di kontaan saa su ne di ñëw ak yéen ci seen émission tam tam fii ci euh, RTS 2 waaye di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam parce que nag mbokk yi defe ne une bonne ambiance de travail euh, suñu ko amee defe naa ne li nga xam ne dañ leen koy jox di ngeen ci kontaan loolu te mbokk yi nag loolu moo ñu tax a jóg kon nag ñi ngi ziar ñëpp waaye nag fàttewuñu ña nga xamante ne bii ñoo ngi ñuy seetaan ci hôpitaux wu Sénégal yi yal na yàlla may leen wér ba ngeen dellu ci seen ay kër ak njaboot gi waaye nag ñi nga xamante ne ñoo ngi ci prison yi tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salam yalna yalla def li gën mbokk yi nag di len euh, xamal ne euh, tam-tamu tey bi door na ñu ñëw ak yeen nak ci éducation et civisme and ci ak suñu xarit euh, madame awandoy job tay lan la ñëw ak ñun mu né circulation routière mbokk yi nañ ci mëna wax bari na lool mbirum comportement yi et cetera waaye danañ yaatal waxtaan bi ak suñu invité mbokk yi bu du joggé ci loolu nak dañuy ñëw ak yeen ci ijab du jour and ci ak suñu xarit Mage c'est vrai que nak Mage namon nañu ko lool Mage ko ko gis-gis né ijab bi na ma koy defaree fashion waaye nak danañu won aussi ben modèle dans quelques instants euh, ci démonstration bokki yi bu ñu jógee ci lolu nak euh, dañuy kontaan sa suné di recevoir ki nga xamante bi moy suñu tonton Lamine Ndiaye mom nak fu nek lay feulé waaye tonton euh, tey defe naa ne man na ma koy war a nuyoo mooy muy kenn ci séeréer yi xam naa ba ca kanamee bu ma joxé parole inshallah allah dinañu ci mëna a waxtaan bu baax a baax mbokk yi ñu jeexal émission bi sa suné ak vue sur la toile waaye nak dañu am invité bu nga xamante bi mi ngi fi ci suñu plateau ñu duppee ko monsieur Amadou Abdou. Si, dit moniteur, expert en prévention routière et conduite automobile. Moki, Madame Régie, Adaloussi

c'est un énorme plaisir et vous êtes toute jolie <laughs> merci beaucoup Yakham tout comme toi hein. <laughs> merci beaucoup toujours plaisir de les rencontrer ces uh-huh. plateau bi merci uh-huh. comme nous nga la joie de vivre merci pour ça Nous <laughs> euh, ngi nous ñi plateau bi euh, à commencer par tonton mon partenaire de nous aussi monsieur si et notre cher Mado Magique. Mhm. exactement di nuyu aussi public bi ñuy suivre yépp. J'espère que ni tay si thème bi ñu leen indil muy circulation routière ak li ci am yépp mhm. dina ñu bëri dinañ ci am luñ ci jot a fort luñ ci jot a jàng ak aussi nu ñuy xoolaatee toog yi. exactement parce que mhm. ci actualité bi ci poroxaan bi je pense que gis nañ ne que accident mortel bëri na ña ca dee. Euh, bëri na voilà lim bi euh, voilà dem na ba plus de plus de dix xam nga ñi ngi xool ba léegi. bëri na ah, parce que si euh, suba rek ñi ngi annoncé waat ñeneen ngay mexe exactement mu nek lu doy war tout à fait ñu leen di jaale tamit seen famille ñu ngi koy jaale suñu borom yi xare voilà c'est vrai ñu koy jaale nak vraiment képp ko nga xamante mi jot nga ci ñak euh, vraiment euh, sa ay mbokk wala xarit euh, man nak lima jaxal tonton qu'est-ce qui se passe tonton ma ngi lay nuyu c'est un plaisir à chaque fois ba paré nak tay nga ñëwul ma nak tenue bi foog nga wax ma tenue bi <laughs> qu'est-ce qui se passe ah moma jaxal de lu dama voyagé woon dikk ah. Mm. <laughs> bi ma dikkee ma ñëw dégg ñi ñi di dee ma di laajte li leen rey ñu ne ma accident la. dëgg la. moo tax tey sama xol neexul. waaw massa topp gi yëpp maa ngi leen di jaal ñi nga xam ne ñii dañoo gaañu. dëgg la ci accident yi. wallaay ndeysaan. war nekk mbégte. Mhm. dëgg la waaye man daal xaw ma nit ñi. mu nekk seen xel yi. waaw ñu xool man yaakaar naa ni senegal dañ leen war a yaraat bu baax. moo tax ñu ñëw ci éducation et civisme point yi mooy dégg. waaw ñu ci jaaree yi du soppeeku. dëgg la. ndax nit loo leen yet yet. Mhm. ñu të. waaw léegi nag ñu jël permis ñu mhm. di xoos di wàññi. dëgg la ba mu jeex. boo ko ñàkkee. waaw na buutu dawalaat oto. waaw duñ la xoosal dara nga rey ci keneen. dëgg la loolu la defaat rek. ce n'est qu'un éternel recommencement. dëgg la dinañ ci ñëw. ma ciy profité waa yéen ñii di ñu xool. Mhm. di leen nuyu. Mm-hmm. di leen sargal di leen tatagal. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla accident yi wàññeeku. amiin waaye bu ko defee ñu nekk ci jàmm. absolument totalement mënut a am. waaye mm-hmm. nañ jéem fekk ci totalement. dëgg la ndax nit ñi nekk ci seen aafiya. waaye xëy di dëj rek. waaw. metti na metti na en tout cas euh, tonton ñu ngi kontaan euh, ci vraiment na nga na nga commencé émission bi parce que tey waxtaan bi li ci ëpp ci loolu lañ cee jëm waaye tey xam nga lu ma jaaxal lan moo waral séeréer bi. xam nga damaa rax. dëgg la. dama la doon toppandoo ba faf rax. ah mokk na. mànga bu ñor loo ci soxla. <laughs> ñor xomm. ay yow yaa ngi yegg ci xomm gi kii dañuy xomm. <laughs> en tout cas euh, sañse bi tey fan la jóge ah ci oh kooku nag eh, pour ma bañ a fen te wax lu dul dëgg. waaw. Angleterre la jóge. Angleterre nga jóge. oui. okay hello how are you. <laughs> fine. good and you. I'm good. I try to be good. yes I'm very fine.

prévention routière et conduite automobile monsieur si ñoo c'est pour nous en tout cas un plaisir de vous recevoir du plateau Tam merci merci Yaham. xam. kontaan naa trop. ci une invitation bi. may nuyu sama grand Lamine. parce que nous avons bu fekkoon gars yi nekk fee di yi. gis nañu li am fi avant lui. avant li beneen affaire la. Pape bul dugg li man dama fee yek bayiko fi te en tout cas ci ah. kanamee euh, comme ni ñu ko jundee daal dinañ seq yow waxtaan bu am solo bu nga xamante ne dana mën a jëriñ nit ñi bu baax a baax ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa teewaay waaye nag euh, di kontaan ci suñu rakk parce que moom nag wax dëgg yàlla na namoon nañu ko euh, vendredi ba li nekk nekkul woon ci plateau bi waaye nag gisoon nañ sujet ba nga ñu indil mm. ñu ngi lay dalal jàmm Mar c'est un énorme plaisir pour nous aussi de te recevoir merci beaucoup ma uh-huh. kontaan bu baax uh-huh. ñëwaat namoon naa bu baax a baax uh-huh.

comme ni ñu ko waxee poroxaan ak yeneen yeneen xew-xewu senegal dee yi dafay bari ñu xool naka la ñuy def ba mun koo saafara buñ ko mënul jeexalit ñu wàññi ko mbokk ñu dem xool nan la ñu ci madame Awa Ndoye Diop indil dellu waxtaan ak suñu invité ci problème bu mag boobu de. sofëër yi moom ah, liggéey boo gis am na ñoo xam ni am nañu weer am na ñoo xam ni dañoo tegg ndawal parce que dë dëgg moom laa wax. parce que am na sofër yu bari yoo xam ni man sama bopp xaw ma xaw fu ñu jàngee oto mais man jaaxal na ma parce que parce que lan mooy problème bi mooy boo ñëwee ci intersection munoo jàll bàyyil ki mën a jàll moom mu jàll. mais yow da ngay gis yoon bi euh, kii après nga ñëw fatt ko kii bëgg a jàll mun a jàll suñ la waxee nga sànni loxo. comportement mu ngi si de ndax moom yenn saa da ngay gis ñaari sofër yoo xëy ni sax. benn sëwër day war a mën a am espace bu ndaw pour jàll mais xolam moo ko dul mooy mu mën a jàll day taxaw xol mu ngi ci de mais am na foo xam ne moom day xat comme fu mel ni fii nii euh, fii ñuy passé visite noonu moom oto yi bëri mais tam xol yi moom ci la moom wax dëgg yàlla. am na ci ñoo xam ni maanaam ni dawale moo loolu moom naaj su maam teguñu ko ci carte code de la route quoi mais buñ ko tegoon buñ ko tegoon ci code de la route yaatalante xol mooy loolu noonu te li du demee ni mu demee. situation bi dafa metti dafa metti. gis nga même parfois péage service informatique bi péage bi parfois day am problème affaire informatique loolu moo tax bu oto yi jógee rek péage bi affaire bi bloqué wu il faut que état bi xoolaat affaire yu tali yi waaw jéem a yaatal yoon yi boo dem rek da ngay def quatre heures de temps wala 8 heures de temps de route ah loolu ñaaw na loolu metti na trop soxna si solution yi mooy ku nekk xool sa bopp rek jéem a mën a yaatal sa xol rek boo yaatalee sa xol daal moom <laughs> moom moom dara du dara du kii dara du dara du jafe si yow. war nañoo delluwaat nag yar bi quoi ak ak ak parce que yar moom lu mu la muyul du la ko mas a xañ ci àddina waaw euh, madame Awa Ndoye Diop nag dafa mel na yar ak teggin mooy àddina te yaakaar naa ne la la nga xamante ne bi mooy contraire ba ñaanunu ko te nag la muy jur mm-hmm. surtout nag ci sujet bi nga xamante ne bi tey moom la ñu indi mm-hmm. muy tali bi mm-hmm. madame Awa Ndoye Diop doy na waar donc faaw ñu waxtaanee ko continuer sensibiliser population bi mm-hmm. pour que daal vraiment ñu xool naka la ñuy def mm-hmm. parce que daal yegg na fu nga xamante ne bii léegi kenn xamatul ba pare teggin bi xam maa ngi expliqué nag démb nekk naa ci mm-hmm. oto kilifa nekk ci otoom ku yore transport en commun mais na mu yëkkatee loxoom sànni loxoom kilifa boobu maa ngi naan ah kii moom ndax xam na li muy def lan la <laughs> non par exemple da sax tiit si yenn comportement yi encore une fois ñu ngi nuyu ñëpp parce que lii ni defe naa vidéo bi ñu reportage bi ñu xool rek. Mhm. teunk na lepp mhm. finalement ñëpp yakamti légui yakamti pour yegg fan. pour ray sa bop wala pour ray kenen mhm. parce que tamit xam nga dañu wax éducation et civisme mooy yar ak teggin bi la <laughs> yar ak teggin bi du ci biir kër gi kessé té en général ñi def yenn infraction yi ñom ñoo gëna mëna nek nekk ay allemand seen biir kër yi deug la te nit ku nekk ni ngay comporté woo. Mhm. l'enfant n'est que le reflet de ses parents. absolument nga mu gis la ñàkk la gis day mel ni comme genre virus la parce que Dieu est tellement juste. Mhm. que ni nga mel reflet boobu lay defaat ci sa doom. Mhm. après nga ko ci mere fekk na yow démb def ko ko. absolument euh, li ngay wax léegi toujours dañuy wax na l' ancien a toujours raison. qu'il donne qu'il neige il a raison. absolument mais moom mooy respect bi ngay. jox mag ki respect bi ngay jox sa bopp respect bi ngay jox sa morom ak yërmande gi ngay jox tamit xale bu ndaw bi ba nga xamante ni loo nar a def di nga ko jomb def mhm. espère bi xëy na dinañu ci accompagner bu baax a baax parce que liñ ciy gis bëri na waaw alors sama sama première question monsieur si. Euh, mooy déjà euh, euh, nan nga gisee reportage bi ak lan la lan lay firnde salaamaaleykum ma leen di nuyuwaat mhm. comme ni ko yaa xam waxee léegi reportage bi mhm. dafa firndeel lépp lu ñuy waxtaan lépp li am ci tali bi boo ko xoolee ci reportage bi gis ko parce que dafa tontul boppam parce que dañu ne circulation buy am dafa war a tegu ci yoon yoon nag ku ko jël def ko xarit def naa doo juum du rek le conducteur kiy dawal dafa war a jàng dañ ko war a jàngal ki kay jàngal dafa war a xam dañ ko war a teg ci ay charte teg ko ci yoon que nit ki boko joxe kayit ba. mo mhm. mën ko jëfëndiko mhm. mais bu koy jëfëndiko tamit. Mhm. dafa am ay loi les lois. mo ñu régir ñun ñëpp. kenn du def te do xol ne li su ko deful li dina ma ci dal. il faudrait que ñu xol la formation. xol les euh, la loi. nak lañu mëna def. ba mëna yok contravention yi. parce que les sanctions. tant que amul avec une bonne formation. Mhm. les du euh, euh, monsieur si que d'accord. déjà mhm. formation bi l'obtention du permis de conduire. Mhm. tonton Lamine dafa nek lu nga xamantene bi du ay je parce que mën nga ci lor sa bop waye mën nga lor doomu à yu bari. tamit ci permis la nga koy jot xaalis bu bëree bëree bëree bëree bëree ngay joxe. Mhm. ja pour njàng bi. Mhm. te defe naa ne côté boobu tam war nañ fa taxaw tuuti. Mhm. obtention du permis de conduire. waaw euh, man sax dafa am lu may njëkk jiital avant l'obtention du permis. parce que obstan euh, obtention du permis. mooy firnde ne yow mi déjà mët nga. pour mën a dem wuuti ji. permis ki mët bu amee permis dana xam yoonam ni mu koy jaaree. mais dafa wékku ci li muy faral di wax. nee mhm. naa nit ki xalaat la xel la xol la. xalaat ak xel teen la ñu xol ci la war a root. Mhm. am na ñoo xam ne ñi bu nekkee ci circulation bi seen xol. Mhm. fàtte seen xalaat ak seen xel. dëgg la yow loo yàkkamti yàkkamti may nit ki mu jàll nga tegu ci ginnaawam tàddeelu la. parce booy xalaat ni tey booy dem bureau ba. yaa du temps à mettre obligatoirement pour nga yegg fa. ak lu mu la jege jege ak lu mu la sori sori. ak lu circulation bi metti mais man li ma gën a jaaxal yaa xam te waxuñu ko. mooy moto yi. da ngay gis koo xam du sol casque ñëw brûler fa. ba pare dem. bu fekkee benn oto boo xam ne ñoom ñoom moom euh, seen. Euh, priorité priorité. Mhm. Mm-hmm. mais musiba day am. dëgg la te am na ci ñoo xam dañu yore moto di baaje ci digg tali bi def nu mu leen neexal. bu bari bari bari tari noonu la ñu kii. Mm-hmm. am na benn bés benn oto laa dugg ki ma àndaloon mu ngi nekk ci ginnaaw man ma nekk ci kanam. Mm-hmm. mais na benn borom moto moo dal ci suñu ko ni mu dalee moom da doon waaj a ubbi rek waaj doon fa jaar mu dal ci koom. mu dem xalangu ji laa la wax bopp ba ci boppam xaw na dal ci benn poto. mu nekk lu doy waar. waaw waaw mu nekk vraiment heureusement ba ko yàlla dimbale ba nga xam ne dalu ci. mu jóg daal di faxasu. ba ñuy waxanteeg moom di ko jéem a yedd naan ko dawal ndànk. xuloolu la la ci indi. très mu nekk nag euh, madame euh, Awa Ndoye Diop ay mbir yi nga xamante ne bii sànq maa ngi koy wax c'est-à-dire que première bi comme ni mu ko waxee. Mm. yar bi ci la. Mm. waaye ñu xool aussi naka la ñuy def ba vraiment gën a ñi nga xamante ne bii ñooy war a am permis. waaw loolu tamit je pense que expert bi mi ngi fii parce que ñoom ñoom ñooy association des ki su ma juumul ñiy jàngale nit ñi dawal mhm. loolu tamit nan ko xoolaat parce que par yenn saa yi di nga gis kenn koo xamante ni dafa def auto dafa def per dafa def maîtriser wul ñu def de telle sorte que xëy na ñu jox ko ay papiers nanu jaarale ci école de ñiy jàngale auto école nan ko teg ci yoon ba nga xamante dinañ respecter lépp. parce que base bi moom mooy code bi. il faut nga maîtriser code euh, code de la route ba pare bala ngay maîtriser dawal bi. loolu lu am solo la. parce que mm-hmm. ñu ci bëri da ngay gis du nu sax maîtriser panneau yi dañuy gis ñu def sens interdit ñu mhm. forcer dem. waaw wala nga nekk ci rond point sax ñu lay forcer <laughs> voilà alors que yow dañ lay wax ne la ki tegu ci kaw rond point moom moo am priorité yow nga fëlee fële ñëw accélérer. te boo moytul nga sànni ko sa loxo. te nit ko sànni loxo saaga nga ko. parce que saaga la. exactement pour ñëw ci li soxna si wax. Mhm. man dama koy commencer ci ñetti mbir. Mhm. mooy éducation. formation. sanction. ñett buñ ko tëralee. teg ko ci yoon. dinañ am li ñu bëgg ëllëg ñu ngi wax ci bëgg dem vers l'émergence su ñu dem vers l'émergence que les gens puissent émerger d'eux-mêmes d'abord de par leur esprit d'abord ce mm-hmm. xel sa xalaat comme ni nga ko waxee mm-hmm. bu yeewoo mm-hmm. xam lu baax xam lu bon te nañ ci jëm bi nga waxee léegi pour affaire bi permis de conduire permis de conduire dafa am nuñ koy amee dafa am trois phases l'instruction au permis de conduire man dama jànge ci quartier ils mm-hmm. ñoo formés. c'est mon diplôme yëpp ci la ko défé pour di def mm-hmm. pour avoir un permis de conduire il faut qu'on nga une formation initiale. Mm-hmm. la. dans la formation initiale da ngay jang code de la route. da ngay jang prévention routière. bien vrai qu'on ne le fait pas dans le civil. maintenant je suis civil. je travaille dans le civil auto école dans le civil. et c'est comme ça que je fais dañu on a jàng code de la route jàng prévention routière jàng connaissance automobile mhm. sommaire mhm. pas approfondie mhm. sommaire jàng acheter comment une voiture doit bouger comment je dois fonctionner avec la voiture sans que auto bouge. bouger yaa may dégg après nga jàngal conduite muy dawal auto di changer vitesse mais lu ci nek dafa am patcham patch bu ci nek dañ ko ko wara jox ci mais c'est bir jàng ba ce n'est pas que dama koy mhm. mais ils ko mhm. parce que dans la morale. Mhm. ci éthique. ak parce que parce que la def na ci image yi normal. parce que soit alors que li ngay ne dafa ndaw. mais danger bu grave très grave. parce que xam nga sank wax les règles. am na ay sat yu ñu tëral mooy règle mhm. mais est-ce que ñu ngi koy topp ñu ko dafa mel ni da ngay jàng code de la route pour am permis su ma amee sama permis ba pare ma jël sama code mhm. personnel. Mhm. et puis euh, ci biir loolu code personnel bi euh, mooy mooy code de ma route. dafa nekk lu doy waar madame Awa Ndoye Diop xam nga lu tax. Euh, parce que nit a ngi fooyee lu garaaw oto dañuy war a baamtu ñun télévision la ñu nekk. ay weñ kese la. un accident c'est en une seconde. malheureusement ñi ne dal mhm. Mhm. mais un accident c'est en une seconde te le à chaque fois et je le crois mhm. parce que l'accident accident ne L'accident, bouger accident na et je pense que c'est vrai que les day mais va falloir que nous de changer les comportements parce que parce que dañuy transport en commun mun naa def cinq voyages parce que xew-xew am na mm-hmm. mais nit ci àddina soo gëmee yàlla xam ne wërsëg mm-hmm. <laughs> li nga li nga war a am rek ngay am kuli yàlla mm-hmm. gis nga yaa xam foofu benn pàcc la mais da nga leen koy xool sax ñooñu di daw wërsëg mooy ñi nga xam ne nii au lieu ñu toppante topp oto yi yegg ci jàmm salaam déedéet dañu gis par exemple mu bloqué ñu wàcc tali bi dem ci trottoir bi ñu réserver nit ñi fa la ñuy daw la preuve dañ fay daw a daw a daw ba sàkkal ko yoon woo xam yow mi fay jaar sax yow nit mhm. da ngay gis roue yi en mhm. permanence mhm. lii dafa am lu nekk ci oto loo xam ne nii gis nga boo amul oto li ngay ñëkk xool ci àddina bi parce que fu nekk ngay jaar di fa dox mooy natt sa bopp am oto bis cest à toog daal ba am les moyens daal di jënd oto sa xel nekkagul sax ci mën dawal pour yow copteb oto oto luxe la pour yow yàlla defal la nga dajale ba jënd oto. Mhm. nga ne ah ci sa xel ah, alhamdulilah rabbil alamin li ma doon bëgg yëpp am naa ko tey waaye est-ce que mën nga ko. Mhm. et puis et puis euh, madame awondo Diop on va terminer euh, mais ci biir loolu euh, defe naa ne faw defe naa ne lii sax dinañ ci ñëwaat. Mhm. parce que wax dëgg yàlla comportement yi dañoo namm. comportement yi changé. parce que accident yi bëri na. comportement yi doy na waar ñàkkum teggin gi nek na lo problème bu mag léeg-léeg da ngay dawal sa oto sax nit yëkkati loxoom wala wax la saaga la sax mhm. te mu nekk lu nga xamante ne bii des fois je trouve ça tellement déplorable mhm. et c'est grave ki ngay saaga xamoo ko bari na chauffeur taxi bari na si njaga njaay yi bari na tamit si particulier ak par exemple si piéton yi mhm. ñoom tamit parce que benn jour maa ngi de taxaw maa ngi am priorité benn pas romb dama tiit ba dama ralentir dama taxaw mu tegal ma ci saaga dama arrêté sama sama oto ne ko baal ma àq mhm. léegi bu fekkee ni que moom mi nga xamante ne xam na ne amul priorité déjà mu forcé tali bi jéggi ba pare tegal la ci wax bu ñaaw si mag te ni ku ci tamit na yaraat alors monsieur Sy on on va terminer nous nous, la nga nous, mbir parce que nous, nous, nous, wax nous, wax ci nous, nous, des nous, tamit euh, ay ay solution nous, mhm. euh, tamit euh, vraiment ay façon nous, conduite. Mhm. à tenir conduire. ci nous, que nous, ko expliquer nous, mhm. que bu delloowaatee suñu xel. ñu jéem a delluwaat ci xale yi. parce que magu tey yi ngay gis. ku leen bëgg a changer dana jafe. mais comme ni ñu ko ubbee fi may liggéey centre ba. ay xale la ñuy jël di leen tàggat ci tali bi. di leen xamal luy tali bi. ku ci nekk sa parti ci tali bi. ak fan nga war a def looy def ci tali bi. à midi damay jël ay samay propre élèves ñoo xam ne dama leen di jàngal nu ñuy dawalee oto xale bi boo ko jàngalee luy tali nu mu war a amee permis piéton en tant que piéton am permis mooy je connais la route je sais par où circuler dans la route ou traverser ou traverser mhm. comment circuler comment me déplacer mhm. kooku boo ko jàngalee nit ki ba pare mu màggeek moom mhm. demee boo koy jàngal dawal ci lay gën a yomb mais nañuy continuer de wax nit ñi ci prévention routière mais prévention routière dafa am luñ ko war a jàngalee la prévention routière yamul ci ceinture de sécurité rek yamul ci prendre l'alcool rek ci li may gis toujours ñu koy la prévention routière il y a autre chose que ça parce que ay ceinture de sécurité ce ne sont pas des facteurs qui amènent un accident casque bañu mu ñu wax ko c'est pas un facteur qui amène un accident ce qui amène un accident, mm -hmm. ce sont les facteurs dont on doit parler. Mm -hmm. Comportement bi, mhm. ngi ci. le non respect des règles. Mhm. mi mhm. il faut que ñu delloo soit xelu nit ñi. jàngal leen lan mooy oto. bi may dawal Lamine di jël di accélérer. mu bëggee taxaw mu bës frein. mais Lamine la accélérer xamul lan la. la mu bës ak la muy ak la muy jur mhm. Lamine xamu mhm. man ci nonu nak la bëgg ñuy tagati nit ñi ci prévention routière mhm. bu ëllëgee ku ci nekk da nga xamné big bi su ma ko yebee ci auto ma daw muy peser par exemple 1 kg suma dawé ba egg 50 km/h big ba nekkatul un kilo dana nekk boo moytul 10 kg deug la te big ba buy dal ak 10 kilos. Mhm. lan lay indi. Mhm. boko defé ci xelu nit ki. Mhm. mu xam ko defé na lu bari dina ñu très bien en tout cas euh, sa njëw oui poser benn question. parce que si suba dama dégg ministre bi di wax euh, légui dañuy xol transport en commun yi ñu arrêté daw à partir de vingt deux euh, lolu muy benn question est-ce que dina résoudre problème yi oui ou non benen affaire bi mom moy côté infrastructure yi euh, naka la war pour que ñu mën ku nekk gérer assumer sa responsabilité. ok pour la première question mooy que ñu arrêter le le transport interurbain. Mhm. à partir de 22h heures. 6h mhm. du matin. kooku mën na. dina résoudre ay dina résoudre dara. parce que booy jàngale da ngay xamal nit ki ne ko bëccëg dafa bëri accident. Mhm. mais pas grave mais il y a moins d'accidents.

su ma ci duggee sax man. damay xam ne man sama bakkan <laughs> mi ngi ci xottu pot. dëgg la mhm. te dama ko ma dëgg la mhm. deuxième question mooy mhm. infrastructure. suñu nous ba les dinañ xam ne avancer nañu lu bari ci infrastructure. donc quand j'entends les gens parler la route la route la route. c'est pas la route que tue les gens. c'est nous-mêmes les infrastructures sont là. amul ken ko tok keureum tali bi fekk ci lafa. fa. yaa fekk ci tali bi. dëgg la yow yaa jàng am permis. xam noo war a ak ci tali bi. xam noo war a sa oto. tali bi. Lamine Ndiaye buñ ko defale tali bu mais da kay daw allure. mais bo demé gis ay kamba. comme boy dox la bo gisee kamba yi da nga wàññi da nga sa toxim.

yow tak nga ceinture de sécurité mais ña nek ci biir auto bi dañu wara tak ceinture de sécurité aussi bien mhm. ñi nek ci kanam que ñi nek ci ginnaw mhm. parce que s'il y a un choc je veux dire mun na tamit jàppale len touti mhm. donc dafa nek ay mbir yi nga xamantene bi euh, dafa melni ni il faut que ñu delu ci mhm. euh, parce que wax deug yalla amna lu bari lu nga xamantene bi suñ ko waxtane nit ñi dañ am une certaine prise de conscience en tout cas ñi ngi lay euh, remercier mbokk yi ma fatali nak ne ñi ngi àndoon ak monsieur Amadou Abdoul si di moniteur expert en prévention routière et conduite automobile sa ñëw fi amna amna merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup ñi ngi sante bu baax aussi madame Awa Diop parce que ça sonne ci éducation et civisme mhm. ah, ñi ngi jappalé jàppale askan wi mhm. parce que nag ku ne la defal ndànk euh, mhm. pour bañ accidenté defe naa ne yow la àndal dëgg la merci beaucoup mhm. euh, mbokk yi ñu wéyal suñu émission euh, tam tam ñëw ak yéen nag ci ijab du jour ànd ci ak suñu xarit mage ñu dem xool tey lan la ñu mage magique indil dellu si waat mën a yaatal waxtaan أنت نور الله بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت tout euh, ni ko Del Malick di waxee te dama jël boobu léegi waaw mage magique <laughs> waaw parce que chaque fois macha allah. ñi ngi wax ne que sa mannequin bi rafet na. waaye tamit li nga xamante ne bi yaa ngi ñu ko indil muy hijab euh, fashion. Mhm. macha allah fashion. oui merci beaucoup. bii boo xoolee. Mhm. l'autre fois mooy ba fu mujjee bee paase. waaw tonton Lamine doon wax naan kaguni. Mhm. est-ce que ko mën a def def tagal. waaw comme. Mhm. mais ba ma waxee loolu rek la am inspiration ni pourquoi pas bi pas mun ñoo def kagoun mhm. bu ñu jëlee def nigérienne mhm. parce que nit ñi dañoo xewal nigérienne te alors que ñuy voilé souvent dañ niñuy bëgg ko mën ndax dañ naan seen yaram yi seen loos bi dafay feeñ léegi boo defee kagoun comme dafay centré nga mën a musoo ci kaw bookaa nigérienne et puis xoolal bi nga xamante ne tey ñu ngi nii di ko gis mbokk yi euh, mu mel na palmaan euh, palmaan la ko defaree euh, bi daal fu lañ cee mën a daal def pour que jigéen ñi yokk seen taar te nigériane bi c'est magnifique oui oui. -hmm ah rafet na trop euh, mhm. comme euh, taa awa gis na tey def dafa def muso. exactement <laughs> <laughs> tout à fait man tamit ci fashion bi. noonu la euh, avec Idiama surtout je moo ñu accompagné. ci mhm. kii bi ci kagun bi. Mhm. Kagoun bi dafa ko kooku dafa Kagoun dafa noppale. parce que boko ko lene lu mën nga def sa bop man tay ji maa ngi dama jiite kagun. alors que def naa kolu mi fashion. d' accord yow tam sa bopp fashion na parce que jiital nga kagul mais def nga mélange de de couleur. pour vraiment ak yére bi mu and ak yére bi nga xamné mom nga sol. wa wa souvent parce que dama ma xool mhm. affaire bi nekk tout vert. Mhm. léegi pour ma am lu ma mën a génne ma def kagum bu beige. Mhm. Euh, collier bi nekk beige. dàll yi nekk beige sac bi nekk beige. très bien <laughs> macha allah monsieur si alors lan nga gis ci vraiment vidéo bi nga xamante ne bii euh, seetaan nañ ko ñun ñëpp. muy léegi suñu suñu euh, sister yu bëri dañuy vraiment def li nga xamante ne bi moom mooy muuru. te muuru bi nag saa su ne ñu koy améliorer parce que muuru terewul fashion comme ni ko Mage waxee. ma li ma ci gis mooy que. Mhm. muuru bi dafa rafet te dafa baax. wallaay ndeysaan te yàlla dafa def ñu ci dëkku diine. Mhm. ñun ñëpp ñu ay jullit bien vrai am na ñu tudd jullit. dëgg mais dafa baax. Mhm. suñuy jigéen ñi. di muuru. parce que muuru dina wane na yow jullit nga. mais muuru aussi dina la. laaxal lu bëri. dina la aar dina la aar et c'est très important. suñuy maam yi dañu ko xamal. dëgg la alors tonton tonton Lamine yaa ko laajte woon de. Euh, waaw le indil nañ la ko nag tey. comme d'habitude. Ah ah. <laughs> Euh, mu am ay couleurs yoo xam ne nii euh, moom la boole tey image. Mhm, mhm. nekk ay couleurs yu extraordinaire mhm. difficile. Euh, comme ni ñu koy waxee ci wolof. Euh, mhm. def ci assorti mhm. parce que ñu loolu la ñu xamoon quoi. Mhm. duñ ne affaire bi dafa rafet ak dafa nangam nangam bu kooku dafa gàtt te yomb dañ naan ah sa mbir mi nga sol tey day assorti na. Euh, kon nag loolu aussi tamit bëgg nañ ci lool. ñu bëggaat ci. jonguma ji nga xam ni moom ngay faral di wone macha <laughs> parce que lool teg ci bopp bi mu dox dem. dëgg la jonguma sonnul man lenn rek laa la laaj. Uh-huh. Euh, ndomb yi ngeen ko defal ci musuur bi noonu ba mu kii. Mhm. Ah, loolu moo indi particularité nigérienne. oui loolu moo indi particularité nigérienne oui seen origine loolu la quoi seen mhm. style la. voilà et puis seen seen bi boobu seen culture boobu dafa am ay ñàngat yu bëri. Mhm. parce que euh, am na daal nooy defee dañuy xam ne yow borom xaalis nga. oui ah oui dafa am ay code.

c'est <laughs> ah. en tout cas c'est très joli surtout mannequin comme très joli et puis ça donne envie. très bien en tout cas Mage. vous mm-hmm. mm-hmm. remercier Magique. ça a le plaisir de te mm-hmm. retrouver la semaine prochaine. pour une démonstration parce que ça a sonné, Ija comme on les appelle. Ah. Euh, tous les vendredis. Euh, pour que vraiment nous des un ay modèle yu merci beaucoup remercier merci beaucoup bah, je me remercie euh, toute ma famille ma maman particulièrement son papa Ni ah, ñu maman ah, ah, <laughs> remercier en même temps je me remercier euh, ñi def make-up bi mm-hmm. salon Mamita remercier encore nous mm-hmm. sommes à bord pour mm-hmm. si côté côté fi yi je ne Juma comme Massou comme page

wah ni pas kamu tegi tegi tegi yi dégg tëgg bi ñu tëgg léegi nga dagaar ba pare bu ko indil mbokk yi la ñuy recevoir tay ki nga xamante bi sank sànq ñoo ngi doon wax na fi waaye nak dafa melni ni yi nuyo yi ak lak yi bari na mari ngone Ndione c'est tout un plaisir en tout cas pour l'équipe de la RTS2 rawati na tam tam di la recevoir parce que nak nga nek artiste bu mag bu nga xamante bi eh, yag nga def liggéey yag nga collaboré aussi avec RTS parce que mm-hmm. maa koy wax ñu nak yow depuis Sono Mondial Dakar FM avec le grand Michael Souma la woon nga continuer nak vraiment wéyal sa yoon mm-hmm. ci walu art bi actuellement nak euh, di ci def liggéey bu mak ñoo ngi lay nuyu dalal c'est un plaisir pour nous de te recevoir ben, le plaisir est partagé man toujours damay am mbégte toog ci plateau RTS ndax fi la lepp doré mm-hmm. ni nga ko waxé ak le grand Michael Souma ak euh, tonton Maguette wad tout à fait vraiment parce que ñoom ñaar Maguette Wade moomu njëkk a dalal plateau ak ndem si yàlla Francis Cerna Ba mooy Ahmadou Ba dëgg la ak euh, Soña mhm, kon euh, saa yu ma duggee fii ay souvenir la may euh, ay souvenirs yu bari ñooy dellu si ci man ma am mbégte itam ñëw fii ci RTS mhm. ci émission bi ñuy wax tam-tam ma kontaan ci lool tasa fi ak sama xarit mhm. sama tonton sama jaay suma lépp ñun noonu lañ koy woowee muy tonton Lamine Ndiaye vraiment tonton ñëpp waat muy mhm. tonton ñëpp euh, biñ nek bu duggee Sorano ñun ñëpp dañuy kontaan dëgg la ndax tellement que bu la fekkoon nga mer dina wax ba ñëpp reetaan et c'est vrai en plus <laughs> et puis dëgg la <laughs> dëgg la vraiment dama kontaan tey ci ñëw participer ci émission bi mhm. bokk den ak sama benn jaam à côté ndeysaan parce que xal pulaar yi ñooy jaamu ah bon ah man duma si dugg de non non si xal pulaar yi ñooy jaamu d'accord monsieur si wax euh, joolaa yi ñooy ndayu joolaa yi ñooy ndayu ah d'accord ban ban la parce que man tonton Lamine ñu ngi dugg ci. naaf futum ne ngay wax. Ah, mooy mooy fan ban gox. Thiès. Fandène laa dëkk. futum ne séeréer noonu.

benn journée boo xam ne nii wax dëgg fa yàlla waa Fandène mhm. dañ ko jagloo mhm. parce que nag euh, Fandène man dem naa fa mhm. euh, dem bu neex lañ fa dem. macha allah boo xam ne comme yow da nga rax du mooy dugg ci biir <laughs> parce que gis naa ni nga ni nga sërxalee affaire yi. Ah, ah. ba pare ñod di ko ci wet wax. Ah, daal di teg foofu waaye duma ko teggi man. dama lay bàyyi loolu di wax ci moom. nga xam ni Marie Ngoné mm-hmm. yemul rek ci woy ku ko mm-hmm. séentu ci woy. Mm-hmm. boo déggee na muy woy sax war na lu yóbbu firndeel la dara ci moom. dëgg la day génne yéwén. xol bu rafet. comme laa ji Aram Aram Camara qu'on a ba pare mu nekk nit koo xam ne ku dal la ku teey ci li muy def daf koy gëstu.

ci liñ ko gënoon a xam. Mhm. waaye la mu ànduloon yëpp. te xam ni nit ñaa ngi ñëw ci moom di ko gëstu si di wax. Mhm. moom dafa ànd ak dal ànd ak tey di xam fa muy jaarale boppam. très bien kooku jigéen ju mën góor rek koy wax. très bien Marie Ngoné Dione donc nekk invité RTS 2 invité du jour aussi euh, mbokk yi ñu dem xool euh, vraiment yenn benn ci clipam dellu si waat mën a continuer waxtaan bi parce que nag euh, faaw ñu xuus nag ci li nga xamante ne bi moom mooy carrière am ñu.

xalaat ko togg ko ba mu euh, nu ñu koy waxee ci buutin ba mu ñor ba mu ñor xom mhm. mu daal di ko yekk très bien te yàkkamtiwul mhm. fi mu nekk dafa ñëw ak album boo xam ne nii il y a treize titres mhm. génnagul treize titres yëpp ay chansons la yoo xam ne nii euh, féetalewu ko ci ay euh, yoo xam ne nii dañu way nit kii wala kii ak yooyu mais daf ko dugal ci éducation ci la ñu ñëwoon tey ak euh, madame Awa Ndoye Diop mbirum mm-hmm. éducation mu nekk lu am solo xëy na nag euh, ñu bàyyi euh, monsieur si mu am kàddu bu mu sànni ci artiste bi nga xamante ne bi mi ngi wéyal di fësal culture séeréer laata ñu ñëw nag ci album bi parce que tonton lu mu wax dafa am solo mm-hmm. mooy que daal ay mbirum éducation nga ci ñëwee monsieur si. dama ne tey honneur laa am mm-hmm. bi ma toggee ñu nit ñu mel nii. ndeysaan nga xam ne chaque jour dañ leen di dégg. ñii mhm. ñu leen di gis. dëgg la moom mhm. ci tele laa ko xamee. Mhm. mais ma gën ko xam ci sama benn xarit. bu may liggéeyal. muy séeréer moo tax sànq bi mu ñëwee. ma nekk ndax fajit la bokk. parce que sama benn collègue bu may liggéeyal muy sama grand di Pape Koli Faye moom bu ma duggee centre bi may jàngale ca bureau moom lay teg. ndeysaan macha allah pour firndeel rek ne kii. nit mm-hmm. nit ko a mm-hmm. nit parce que ne. Mm-hmm. chanson yi amul pour mais pour éducation. très bien que ngi dem ci éducation alors nous ñëw ci parce que mooy euh, vraiment sa album bi. waaw dama koy wax ne ko xam nga woy euh, parce que mën ngaa éducation joxe exemple. ci nit ndax am na yoo xam ne yii woy naa ko fii par exemple. Mhm. ci nit koo xam ne kii day dimbalee rek te yàlla rek tax. ma woy ci. Mhm. ma ne ko comme ndànk yaa ngi def te yàlla rek tax yàlla dina la fay. bul mos a def pour doomu aadama. Mhm. xam nga yooyu. di nga woy nit ki mais dafa am ay qualité. yoo gis ci moom bëgg ñeneen roy ci moom. moo tax nga woy ko. ndax dem Deme mii ma doon woy fii borom la maison des anges. moom ku teel ñàkk yaay la. mais dama ko ne teel a ñàkk yaay. Mhm. terewulaa am jom. wallaay dëgg la ndaxte taxul mu ngi nii nekk ubbi ay école. Mhm. nekk éducatrice bu mag. Mhm. di jàngale. di éduquer xale yi. kon ba may ñaax ni nga xam ne dañoo teel ñàkk yaay. moo tax ma wax ko ne ko teel a ñàkk yaay yow. terewulaa am jom. te am yaay dafa neex. dëgg la waaw ay comme bii titre bi abu xat. abu xat mooy jàppoo leen ci séeréer noonu. Moy jàppoo leen dama ne buñu ñu jàppoo te jàppalante mhm. ñu kon kon nañ mhm. jàppalante tonto la mi jappal ki mu Abohat. aboxat Moy Abohat. aboxat en séeréer noonu yow nga jàpp ma ma jàpp monsieur si wala ñu jàpp waaw kon lañu jàpp jàppoo jàppalante jàppoo jàppalante yalla jàppale ñu jeex na lolu moy titre album bi di ñëw mhm. te comme nima ma ko waxee woon bale passé dang la won tidan boo boko don tek tay da ngay naan marcher doucement et prudemment tidan dang bo mon daf ma neex est-ce do ci ñew ni en live ni waaw parce que damay ne moo tax ni ko Lamine waxee man yàkkamtiwuma sama dara. Mhm. man toog naa presque 2007 laa gëj a génne album. li Tidaanong ñëw ñëw ci. Tindaan danga ndage. Tindaan dang dangoy fay. fay biram penda waagaan dugu dugu waagaan xañit waagaan waagaan kumba sanjaan ku fi sant fay sabas ya ah? tindaa ndang ndange wallaay tindaa ndang ndang ooy fay waaw waaw tindaaroo tindama coox mi waa tiilub mangaang waas tindaandang ndago fay ne tiidaandang très bien ne tiidaandang ndagi ne tiidaandang eh waay ne tiidaandang ndago yaadam tiidaandang waaw waaw ne tiidaandang ndago lamin ne tiidaandang ndang waaw waaw ne tindaaroo tindama coox mi waa tiilub mangaang waas tindaandang ndago ne tiidaandang mm-hmm. kates ci ndak ndak ndago du waakile a wallaay ere ci ndak ndak ndago ne ti ndak ndak si sawa ne ti ndak ndak ndagi way ne ti ndak mm-hmm. ti dama coox mi waat ti lu manga nga waas ti ndak ndak ndago ne ti ndak ndak léegi nag xam nga

caabi jaa ngi ni <laughs> jeex na ñu nga continuer ci li nga doon wax euh, dama doon wax ne boo déggee ma ne tin daaroo tindum coox ma mhm. tilub maa ngaa nga was dama mhm. ne doxal ma doxinu ñay mhm. balaa dëkk di la jam ci yoon léebu la du dëkk maanaam bul yàkkamti doxal ma doxinu ñay ñay dafa rëy mais xool ko ni muy doxee ndànk lay doxee ak prudence. ndax bu ak tey. Mhm. bu yëkkatee tànkam balaa tegaat beneen bi dina xool fa mu koy teg. Mhm. la. Mhm. woy bi si bu rëy ñàngat bu rëy la. caabi ji waaw ah, caabi ji dama doon wax ne o caafle jamaani te nim ñaapa. ndax yàlla dafa def euh, man damay woy en siin. di woy saafen di woy noonu. lu waral loolu. Ah, c'est parce que mooy li Lamine doon wax sànq. gëstu la. ak bañ a yem ci noon gi may nàmp rek. bëgg a représenter. toutes les séeréer. la culture séeréer. Mmh. toute la culture séeréer. Mmh. Euh, ndax bokk naa ci njëkk gal génne album. ci artiste séeréer yi. Mmh. ndax bu weesoo Pero Sarr. ma génne de 92. man maa ci topp 93. ñeneen ñi soog a ñëw. moo tax euh, man tout le temps damay jéem a véhiculer sama message. ñëpp jot ci dama ciy dugal ay baatu olof pour ñeneen ndax suñuy maam. noonu lañ doon woyee woy cosaan. caafle jamaan yi bi ma koy woy mu ngi mel ni. exode rural bi laa doon wax. te yàgg na. waaw parce que mu ngi mel ni man dama jóge Dakar dama jóge Fandène ñëw Dakar pour ut si liggéey. Mhm. ci laa doon wax ma ne. o caafle jamani tenim ñaapa rewɓe asohonon areta dakaro lagandon o mat pangol den namba hasanun mane caafle jamane bi maanaam cafle euh, jamono bi ni ma ko doon tudde woon foofu mooy dundum àddina bi moom la ñuy uti mm-hmm. moo tax ñu jóge dëkk ba di ñëw ndakaaru mm-hmm. ñun itam ñoo ngi ñaan suñu pangool yi ngala nañu sàmm fii mm-hmm. ma ne euh, clair de lune yi doon am au village amatul dëgg la de. ma ne néeg yi. xale yi xamuñu ko ma ne néeg yi xeeñatuñu cuuraay. ndaa yi feesatuñu. ndax ñi leen war a feesal ñëpp. Mhm. jóge nañu dëkk ba. Mhm. ñëw exode rural bi ñëw. Dakar c'est fort ma ne góor jigéen ñi amatuñu sax ay xarit yu góor. Mhm. ndax bàyyi nañu ñëpp dëkk ba. seen càmmiñ ñëw fi bàyyi suñu càmmiñ yi. dëgg la ma ne ongaaf taxu saaxaroof mane euh, euh, dugub. mooy dundal. tëgg la waaye jigéen. Mhm. mooy jur mooy lawal. la mhm. xam nga am na ci baat yoo xam ne des fois ko mën a traduire. Mhm. mais wax bu yu profond laa ciy wax. ci biir parce que dama ciy gëstu. waaw dama ciy gëstu dama ciy gëstu. moo tax ma ne la des fois naa utiliser benn nit. parce que tiidaandang bi ma ci woye bi ma koy woyal. sama ndeysaan yal na ko yàlla yërëm kooku ki ma ki ma ci doon mooy sa génn àddina. yal na ko yàlla yërëm mais kooku dafa def ndànk ndànk dafa defoon comme genre bawol bawol bu jigéen la woon. Mm-hmm. ñun ay bawol di jënd ay bagages. Mm-hmm. di jaayaat di jënd di takk ndigam di mm-hmm. jaayaat ba dem ba yàlla may ko benn daraja bi. loolu mooy su doxul woon doxinu ñay. waaw bu deful woon ndànk. amaana du yegg loolu mooy ndànk ndànk mooy. jàpp golo ci ñaar entrepreneuriat waaw.

Euh, woy boobu mhm. amulul mais comme yow ni nga déjà exode mhm. yi nga ci dugal mhm. te boo doon ci séeréer parce que baat bi ci très bien ah, tonton euh, kon dañu def vraiment euh, la gi su ko ñu invité bi RTS2 faaw mu ñëwaat ci yu mel nga formation aussi on ne cessera de le dire ci théâtre national Daniel Sorano tey dañ ko tabb mu nekk la directrice de l'ensemble lyrique traditionnel. très bien. L'onu dalee woon rek ni yoon wi mu mhm. yal yàlla na Amin amin amin amin. amiin amiin amiin dafa euh, ci li wax nii fentuma mhm. déjà man def musique. donc mhm. li muy woy. ci tonalité am dafa dugg carrément ci culture très bien boo déggee baatam jéggaaniwul fenn lu ñu fent la. très très bien euh, des fi ci suñu réew. très très bien mu boole ci nak am sens. très bien te loolu loolu defe na ci loolu lañu soxlo way artiste en tout cas ci biir nak ensemble traditionnel bi xëy mhm. très rapidement nga wax ñu fan nga ci tollu parce que tamit mu nekk patch bu am solo ci Sorano. waaw benn patch la bu am solo mais bala may dem ci ensemble lyrique touti rek mu gaaw. Mhm. damay remercier wa Orchestre National. ba paré parce que fofu la njëkkatee ñoma formé. dëgg la bala ma def album def na fa 3 ans soog mëna def album. très bien. léegi may remercier aussi euh, Mamadou Seyba Traoré mi ma indi théâtre national Daniel Soumane ñu koy nuyu tonton Seyba vraiment di remercier sama directeur général nga xam ne mooy Seydou Sarr Samb nga mhm. xam ne fi ma nekk tey euh, ginnaaw yàlla moo ma fa teg très Euh, may remercier ñepp ñi nga xam ñom la laa bokkal liggéey bi. d'accord di wa ensemble lyrique di wa la troupe dramatique. Mhm. di ballet national la Linguère. fan ngeen tol ensemble lyrique rapidement. waaw ensemble lyrique fi ñu nekk ni ñu ngi ci création bu bees boo xam ne bu neexee yàlla. Mhm. dinañ leen ko feñal dinañ mhm. leen ko won incha allah korité ak jam inshallah allah ci Sorano te yaakaar na ne exclusivité bi. yéen wa RTS2 très bien yéen a koy moom parce que dama bëgg sincèrement yal nañu liggéey en collaboration parce que li ñuy liggéey mu ngi fi de mais bu fekkente ne itam nit ñi xamuñu ko duñ ko gis dañuy yaakaar ne liggéey alors c'est une chaîne culturelle te ah. nag ñi ngi jàkkaarloog yéen defe naa ne collaboration bi dana war wara mën a voilà parce que la relève est là tout à fait fii lañ nekkoon nag suñuy yaay yi suñuy mag mhm. mais relève baa ngi fii may gërëm ñëpp très bien ñëpp ñëpp parce que comme mbooloo laa yor damay gërëm ñëpp bien. lyrique daal kontaan naa ci jërëjëf ñi ngi lay gërëm di la sant nga jox ma album bi ma jox ko Awa Ndoye Diop mu wone ko ko defee téléspectateurs yi gis n'est que vraiment album de 13 titres la dana très bientôt ñu ngi lay de di la et bonne continuation mbokk yi gërëm encore une fois monsieur Amadou Abdoul Sy di moniteur expert en prévention routière et conduite automobile ça a été un plaisir la nga fi indi am solo ñu lay la sante merci beaucoup à vous aussi madame. merci beaucoup merci euh, ñu ngi gërëm bu madame Awa Ndoye Diop euh, la ñu indil am les njëriñ de ngi lay sant di la gërëm bu maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm aussi toujours ni ma koy faral di waxee rek mhm. euh, l'équipe de mon cabinet le cabinet Active Consul maa ngi remercier ñëpp di remercier sama partenaire. très très bien merci <laughs> beaucoup rendez-vous la semaine prochaine tonton Lamine toujours un énorme plaisir di la recevoir di la ñaanal yàlla defal la jàmm ak salaam nga yàgg ñoo jiite euh, kontaan nañ vraiment ci sa présence waaw jërëjëf yaa xam uh-huh. man li may wax rek benn uh-huh. baat la bu ñu tënk uh-huh. ma koy jébbal comme dañ ne prévention euh, te on parlait sur sur la sécurité